te di noppal noppal ko. absolument jàpp nga ah kay nijaay tey trois jours ci tey ngeen di waxal ko du su mel nii loolu jaaduwul yéen it li nga kër kenn du ko jël bàyyi ko benn nit c'est vrai que man maay kilifa gi waaye du ngeen jël lépp yéen ma ko bu gisee lu baax lu war a def. def leen ko bu jëree fay aw problème bopp lu mu laaj ma fay. waaye nijaay. waaw ñun kat ndigal lañ doon xaar. am ngeen ci ndigal tey boo léegi lépp lu ngeen gis muy yàq sama ginnaaw jël leen ko en charge maa leen ko digal man seen borom kër lu mu laaj dinaa ko fay. yaa ngi dégg kër gi seen kër la man duma fi ne maa ngi ci àll bi yéen fi ëpp li ngeen nekk donc kon yéena moom kër gi ku seetee yéen la seetal ah. ngaj ko dus am na fi n'est-ce pas. nga dus a ngi fii di ngaj ci. ñaari ngañ la de bu njool ak bu gàtt. bu gàtt bi laa lay wax. ah moo dàq ngaj ci waaw. d'accord man mu njool ak mu gàtt man man na baax rek donc xool leen ci baax ah après mu def ko. bu pare ngeen ne ko man sama nijaay mu ci biir. waaw waaw eh, bu ma fay ko dégg nga nag. waaw waaw ok. Absa. waaw dugal wooyu ngañ lay xaar. kon de maay dem. ah waaw léegi nag kër goom xale baax. am ah, nga su fi xale yi nekkoon dem na toog. moo tax man la nga jur. waaw ba ci kanam waaw ah, ba ci kanam waaw. Kamu moo tax ma koy nekk yàlla ni bu la ko xam ne yàlla sa dund yow li di wax yow aram tu ko sa jabar man nga ma ko wax ah. ah da ngay wax sa jab yow foo dëkk. moom ci kër gi dëkk. yow foo yeewoo di ci yang gi. waaw ba pare mu naan dus kon ku feesal dus. ah déet man kay bu ne ko ba koy def ci kër gi nga def. ma dus ni du du fi nga ci dus. waaw. man nga ci rek la def nga ci rek laa na baax de ak ba ñaaw ba xam nga basiru jala ben ah. basiru jala xamul sama do fekk ko ca bu ci son bi fessé man lay wo wala ni nak fos bi nga xamne ku jël ci tan ne ni indi nga nekk dama na ban de wax day neex ak ben ide di ci mu di sa ko na taxaw jox ko fukki jinni la da wax fukki jinni la wara joxe tak xam nga dia nggak pakai mus dia nggak mau ah. parce que di rafet ba sa ah man ngi rek de. day dagg rek ñu topp ñoo teg yi topp topp topp ba ñu ngi noonu ak perruque yu rafet yi. jeex parfait lay. seen wax ñu bëri def jóge xoolal li xam ngeen li xam ngeen li xam ngeen préservatif laa leen bàyyi woon lii moo fatt douche bi préservatif moo ko fatt xool leen kan la ci. ah yow laa koy jox man de du na la ko laaj. man la na ko laaj. sa kanam gii mag mo kii xaw ma foo ko jëlee kanamam gii muy mel ni ras daaj. kii mu ngi mokk mi ngi siin. na la ko laaj

weesuwu leen li def lii weesuwu leen génnu leen yéen ñaar ñii leen xamal benn affaire Adama Diakhaté dama bëgg ngeen xool fii sio bi eh eh xoolal sio bi man bi may takk jabar di ko bàyyi sama kër pour ñu yem ci man képp la woon takkuma jabar ngir di ko bokk ak kenn te li def lii weesuwu leen xam ngeen ko jëral comme nag yàlla dogal na ku ne naa ngi yaa ngi naan sa morom la man xaw ma ci kan la. yow la xoolal fii du man sa dëj gi bëccëg gi feri bëccëg sama yoon ñëw ci yéen ñaar ñëpp wàcc naa leen. wàcc yow xanaa da nga koo programme woon. ndox kenn xamul foo jógee say kawas. may ma sama jàmm man faalewuma la man xale bu ndaw laa damay dem defarwaat ba njëkk jaay sa morom dunduma la yow nag moom mag mu dem ba dikk ngaa sa bakkan bu mbàkk bi dina ne mbaaru moom tey soo tegee ni man nga maa dëggul yaa ngi yi man faalewu ma nijaay waxoon naa xale yu ndaw yi ngay takk nga xam ne carrément dañuy fooyee seen ndaw ba mu jeex ñëw fii te loolu la ñuy continuer loo ciy nopp maa ngi toog fas yéene say say mbaa eh, ma topp ah, ak a gën a gaaw topp ca xam nga laa la yëgal yuuxu dajëb ko foogee ma ngay baadoo barke Ndiol Maka cool. bus ba abusé ndax i kàppoot. préservatif. mooy forote. waaw waaw. loolu moom lu moom wàcc nu mu ci amee. <laughs> moo jaaxal ñëpp koñ ba naka ngay koñ ba naka ngay toj. maa la wax lii. papa yow papa ah, wax na dëgg. dem tuuti waaw waaw waaw waaw d'accord loolu dëgg la. waaye tamit nag loolu tamit même bu fekkee ni moo feesal duus bi. xanaa bu ñëwee mu waxtaan ci njëkk ak teraanga sax ndax dañ koo mayoon nag ab saak. yow na ñoo ngi la ciy tudd. ñu ngi ci tudd kan. ah, ah yow Thiel. Thiel nag yaay rajaxe kuy rajaxe nag di nga dégg lu ne sa gëm yow daawa ci wuutewul dara. Eh, déglu ma réglé say wax. Ah, man sama yoon newul ci bagage yooyu. moo ci kenn expliqué leen man dinaa dem dinaa expliqué. naa li ngay wax foo ko wax yow ci fii la yem wax bu yow te yu maa dem maa indi na yem fii lu leer laa bis boo nee absent damay génn guddi naa ko wax sama papa mu rey déedéet du ko wax kenn dama rek ni nag ku ne dama leen a fase man. kawas yi lan ay kawas. kawas yi espoir yi. déedéet kawas yi ne suñu papa. waaw kawas yooyu dañ koy sol xam nga xam nga booy yéen seen kër kat moo fa war a nekk di espoir sax entraînement yi xam nga gos yi dañuy sol kawas ba mu ba mu ba mu. camembert rek man waxuma la kawas yu ni footballé. kawas yi dana oh, kawas yi xale yu góor yi utilisé. tamit tamit jaay pharmacie xamoo ko papa. ay kawas yooyu xale yu góor yi di utilisé nii di di sëy fees si seen douche ba ba fett ko. si wala ca génn. ah ko utiliser mën naa utiliser de. laa ilaha illallah. ak yow day yow day buñ la bu bu mu ma wéeree ci yow mii ko utiliser moom dama lay ñàdd rek xam ni yéen seen kër kaa ki tigga nga fa kaa dëgg defi de presse kay boo ngeen caa def kudu sama jekar ji li lañ na bu doog jotagul bu du wees waaye waru na ma wacce lenen ludul kapot kese kàppoot kese ah dundu ko gul lu nek. xajna ci tamalon mu lu bax lu ni. lu nek tay may dox ni nekkatuma sax ak sama xel te yàlla ay lu